géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee asalaamualeykum mbokku téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci jamono ju ne ak saa su ne mbokk yu mel rek ni ñu koy safoo di defee di seen jotaay ëtt këru diine yi ni ñu koy faral di waxee saa su ne mbokk yi mu mel ni tey nag euh, du ñu wet ci plateau bi tey nag ñoo ngi fas yéene dalal sëriñ Moussa Kalamoullah Zikroulah moom sëriñ Modou Al Khourane mbokk yi mu mel ni nag am na lu baree bare loo xam ne tey nag euh, jotaay dina wute ndax jotaay bii euh, jotaay boo xam ne moo ngi koy fas yéene waajal le 31 décembre di cant yu am am solo lool euh, kon mbokk yi mu mel ni rek duñ ci sori balaa ñuy dem tuuti rek waaye tamit di jaajëfalaat mboolem suñuy téléspectateur yi nga xam ne ñoo ngi safoo di ngeen wéy di abonné ci ci cloche de notification bi tax vidéo bu dugg ngeen koy am temps réel la mu mel bi ñu ngi ci astaghfirullah moom la ñu àndal euh, sëriñ bi dañu lay bàyyi nga beeg jotaay bi aouzu la ilaha illallah illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal yaga yaram la ilaha illallah ce yàlla la ilaha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 góor su maandoo day sore seexi moo doo alxuraan caw sang yaaram lii du keet ni yawaa seexi moo doo alxuraan caw sang yaaram lii du keet ni yawaa laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah di maam Cheikh Ibrahima Fall tabarkàlla jërëjëf Euh, sëriñ euh, euh, ni ñu koy waxatee ak man ma ñu ko wax ne bu ñu leen ñu bari sax dañu lay bëgg tuddee ne la ak saa waaye tamit sëriñ <laughs> di la ziarat bu baax a baax a baax sëñ Moussa Kalamula Zikrullah tabarkalla waaye tamit nga sopp lool ki nga xamante ne rek mu di sëriñ ak saa Samb sëriñ ak saa tamit di la ko santaat bu baax di ñaan suñu borom tamit defal ko tawféex mbokk yi nag mënuñu tàmbali baax tamit di ko ñaanal xalif général des mourides sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha doole guddal fanam doole ko xaadim rasul mbokk yi noonu tam la ñuy ziare bu baax a baax sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall xalif général des Baye Fall ñoo ngi ko koy ñaanal bu baax itam mu yàgg fi loolu te ànd ak wér tabarkàlla sëriñ Moussa Kalamula zikrullah mu mel nii yaa ngi ubbee uh, turu yàlla di kalimatul xaq uh, ñu leen nuyuwaat bu baax a baax di la bàyyi nga mu nuyu mbokk téléspectateurs yi lay bàyyi xel su ko defee nag ñëw daal di ñëw ci programme bi aouzu billahi mina sheytaani rajim wa barkeb Cheikh al Kabir barkeb Cheikh Abdul Xaadar barke si Nuur al ba ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi sant ak a siyaar suñu ci sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Thiaw al Quran ñu gën ko xam ci sëriñ Modou di ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko te feeñal ak kéemaan ci ak dundam ba yéenam ci lislaam mottali ko noonu lañ koy ñaanalee mun Muntaxa moom Cheikh Abdul Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko moom it ba yéenam mu mottali ko di ko ñaanal Serigne di faal moom Serigne Modou Mbenda mi toogee jotaay maam Cheikh la waaye di ko ñaanal képp koo xam ne day sol dàllam ngir diine di siyaar baax mbooleem ko xam ne day béggee Moussa Kallamu la moo xam ñu nekk ci réew mi ak bitim réew di la siyaar baax yow Serigne Mountakha yow ak sa caméraman ak mboolem équipe bu ci info point net di leen siyaar te fiddali suñu kolleer ak yéen ñaan suñu borom télé bi yàlla na ko saa borom yëkkati ca kaw ba ñëpp seen ko ci daraja yi suñu nuur alxuraan tabarkalla jërëjëf sëriñ Moussa Kalamu la zikru la tabarkalla ci eh, buntu boobu nga xamante ne ubbee nga ko rek eh, mu mel ni ñoo ngi gëm directement rek ndax du duñu duñ duñ ci yàgg sax ci yoon wi eh, maanaam cant boo xam ne yaa ngi koy waajal le 31 décembre lan moo waral cant bi ak lan mooy sabab bi te it kan nga ko xamante ni bés ba moom nga ko dippee waaw cant gi moom daanaka dañoo yëg a sant maam Cheikh Ibrahima Fall sant gannaaw ba ci amee ndigalu Serigne Mouhamadou ci alxuraan mi nga xam ne mooy suñu lépp gannaaw ba ñu joxee ndigal ñu tàmbalee cee dox ay jéego cant gi nag ren maa ngi ko tuddee maam Cheikh Ahmadul Kabir Mbaye borom kansul kunut fetillahi xadjaani fa kayfa la bi rahmaan najaani moom laa ko tuddee di waajur Serigne Sàmbay ñoo ngi ñaan nag day sa ngërëmal suñu borom te képp ku teew ci bis ba ñoo ngi ñaan suñu borom defal la jégalu àdduna ak àlaxira daraje suñu mbër alxuraan waaye daraje ki ma ko tuddee muy maam Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ahmadul Kabim Mbaye waaye daraje kamay sant mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. maam Cheikh Ibrahima tabarkal lu waral 31 décembre nga dem ba jàpp bés boobu ñu ci bëree bëri xam nañu programme ku ci nekk xëy na ñii bu ñu nekkee ci wàll bi Zahir bi yow nga dem ba jàpp ne mbir mi 31 euh, décembre laa koy def ak lan moo waral nga jàpp ko waaye tamit ci ban ndigal nga ko jàppee. waaw loolu man xaw ma ko sax waaw loolu man xaw ma ko. 31 euh, gi li tax ma jàpp ko sax man xaw ma ko loolu ndimbalu sëriñ bi la rek ndax ba ma ko njëkkee def hmm. dañoo taxaw suñu bunt kër noonu rek taxaw tudd yàlla. waaw mm-hmm. ah, chaque année muy yokk di yokk waaw ah, noonu noonu képp la demee waaw ah, ba léeg-léeg sax maanaam nit ñi sax bu bu bis bi di bëgg a ñëw sax mm-hmm. dañ la koy fàttali waaw borom la 31 nangam nangam waaw mm-hmm. lépp ndimbalu sëriñ bi la rek waaye ñoom xam nañ ñu ci lenn waaw. Euh, ñëw tamit ci wàllu ndaw ñu koy wax euh, tey fi ngeen toll mu mel ni ay ndaw ngeen macha allah ni ci itam ci yoon euh, comme ni ngeen koy waajalee mu mel ni mën nañu ne daaw xëy na li ko. gàllankoor muy pandémie bi ba tax na sëriñ bi nee la nga teg euh, mën nañ ko wàccandi rek ba déwén euh, yàlla def itam ñu di ko waajal naka nga fas yéene waajale programme bi ndax tam euh, ni ñu ko waxee tam nekk na loo xam ni programme boo xam ni nit ñi boo leen woowee bu ñu ñëwee da nga loo teg seen loxo teg seen loxo bi mooy naka la ñu fas yéene doxalee programme nan la programme bi nar ak bu nit ñi ñëwee lan la ñu a jëlee. waaw programme bi moom daanaka ñu ngi ciy dox ak ñu ngi ci war a àndal yépp ndax boo xoolee ren ni ko waajee ak nañ ko daan waajee wute na waaye loolu yëpp ak yokkute la waaye ndimbalu sëriñ bi la ak mbaxam waaw programme bi nag bu ñu xëyee incha allah rabbi taala dinañ euh, ay kaamil alxuraan bu loolu weesoo it danañ nekk ci liggéey bi bu heure xewalu jotee danañ xewalu ñooy julli julli nekkaat ci liggéey bi ba tàkkusaan ñooy julli julli ba timis ñooy julli julli am na fi am na it ay yëfi sekkan ki géyeen ci guddi gi mm-hmm. ci kàttanu yàlla am na ay jànkat yi ñu invité suñuy wëllëre mm-hmm. jànkat yoo xam ne di leen invité ak ay kilifa yoo xam ne dañoo sopp ngir jëm yàlla rek tax ak yontu ak sëriñ bi mm-hmm. invité nañ leen ci bis bi waaw mbooleem koo xam ne daal euh, euh, mi ngi sopp Moussa Kalamoullah te di ko bëggee moo xam nga nekk ci réew mi ak bitim réew ñoo ngi lay woo ci bis bi bis bi nag sàkkuñ ci lenn du ngërëmal suñu borom mm-hmm. te ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla nga day ci ngërëmal ñu borom ci dara ji suñu borom alxuraan ñu ñëw ci sëriñ euh, Modou alxuraan ñu fas yéene wax euh, muy jëmm ji nga xamante ni euh, daanaka ndaw ñi ku ñëw xool jamono ji nga xool secteur ba ngeen dëkkee wala secteur sax fa daara ja nekkee nga gis ay ndaw rek la maanaam la jiite te ndaw ñooñu tamit dëggal ko mu nekk jëmm joo xamante ni mu ngi liggéey liggéey lu am solo ci société bi euh, di wax tamit ak rawatina ak bës bi nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi koy waajal mu nekk am na ci taxawaay bu am am solo sa diggante ak sëñ Modou al alxuraan war nañ ci waxtaan ak ndaw ñi nga xamante ni ñoo ngi ci gannaawam. waaw sëñ Modou moom euh, ñun lu mel naan tàggee boo gis am na jàppal diw ndax nii ñu mel moo ñu ko def kon lii euh, rus ñoo taxaw fenn wax ko buñ demoon ba Australie it Australie yi bu ñu fa demoo it. waaw ruus yi ñoo wax li ñu suñu mbiru alxuraan defal ñun nag dañ koy sant waaw ah, lot nañ ci sant ko sax ndax fépp fu sëriñ di féeteb taal yi féeteb dañu fa. Ah, matuñu ko sax donc waaye moom ëpp nañu sëriñ mm-hmm. kon ñoo ngi ñaan si borom yàggal ko tuuti rek dundam waaw ah, gox boobu ñu nekk nag dimbali na ñu bëri foofu mm-hmm. ndaw yu bëri sànk woon nañ mu dimbali leen defar leen ndax Sëriñ Tuubaa kat dane bul taxaw mukk ku dul ki nga xam ne aju womate la jëme fa yàlla te sëriñ moo daal alxuraan daa bokk ci ñooñee la ko waajuram bu baax bu bàyyi woon mhm. bàyyi woon mhm. sëriñ Mbay yàlla na saa borom dolli ngërëm ak i leeram ci barki bu waajuram bu teddoo Cheikh Abdoul Khadar waaw ndax moom si lii la nekk mhm. euh, jàkka ja kër ga daara ja si alxuraan lay xëy ci lay gont kon buñ ko tibbee Sëriñ Moodu alxuraan daanaka euh, loolu wàcc na kon ñoo ngi naan saa maanaam da jëmm yoo xamante ni euh, faw euh, maanaam societé bi gën ko bàyyi xel ndax ni ma ko waxee tam am na parents yu bëri yoo xam ne demoon nañ ba seen njaboot euh, xaw leen a të mm-hmm. waaye moom ci loxoom defar na leen ba delloowaat leen société bi kon ku ñu war a bàyyiwaat xel la bu baax moom sañ mu dal Quran ndax ay jëmm la yoo xamante ni xëy na amaana ñu ngi koy gis ab diir waaye dina toll diir goo xamante ni ah pour jotaat ci moom du yomb ndax mission bi mu war la yor la kon ñu nañ ko gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax ñu ñëw ci programme bi Euh, tey mu mel ni yaa ngi ko tuddee maam Cheikh Ahmadou Kabir mbay moom nga ko tuddee ni nga ko waxee muy muy bés bi euh, moom muy jëmm yoo xam ne est-ce que mën nga wax tuuti ci moom moom mooy kan. ah maam moom daanaka ñun mënuñoo xam maam Cheikh mm-hmm. ndax maam Cheikh du ko ñuy xam waaw mënuñ koo xam sax. Mm-hmm. waaye ki xam li ni li wax lu wér la. dëgg la waaye daal euh, maam Cheikh daal moom. Mm-hmm. jëmm la joo xam ne daal. ku am cër la fi suñu borom. ñun nag yëg-yëg bi ñu am ba tuddee ko bis bi. Mhm. loolu ñun xam nañ ko. dëgg la te sàkkuñ ci lenn la lu ngërëm am. dëgg la moom maam Cheikh ndax ngërëmal maam Cheikh. Mhm. mooy ngërëmal suñ borom. waa dañoo seetlu tey yu demee bindoo yi demee li ne mel ci jamono. Mhm. dañ ko tuddee ay borom ndombal tànk yu demee ci àddina waaye nga dem rek dem jël sëñ maam euh, maam Cheikh Mbaye tuddee ko mbir mi lan moo tax parce que ñu bëri tey dina leen jaaxal ñu bëree bëri ak fi nga toll en tant que ndaw. waa loolu dina jaaxal ñu bëri ndax man daa am loo xam ne dama koy doxee ku nekk nag na ngay doxee loola yow la. dëgg la ku yor sa bis tuddee ko keneen wala nga tuddee ko ñaar fukki nit wala fanweeri nit loolu yow la waaye man benn parrain la am muy maam Cheikh Amadou Kabir Mbaye ndax damaa xam ni mboolem yor ndombay tànk. Mhm. bu ma leen ko tuddee woon waxuma la jëmmi maam Cheikh waaye. Mhm. dàll maam Cheikh Mbaye moo leen mën ci saayir mën leen ci baatin waaw maam Cheikh Mbaye laa ko tuddee benn parrain la am. Mhm. tuddee ma ko ministre tuddee ma ko député tuddee ma ko maire tuddee ma ko président tuddee ma ko préfet. benn parrain la am muy maam Cheikh Abdoul Kabir te gëm nañ dinañ ci wett bi. alhamdulilah rabbil alamin euh, jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi gis ngeen muy woote bi nga xamante ni euh, sëriñ Moussa Kalamoula Zikrullah tabarkalla moo ngi koy waajal muy le 31. Euh, décembre 2021 kon mu mel ni rek ni nañ ko bàyyi bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax muy bés boo xam ni moo ngi fas yéene rek nga xam ne muy maam Cheikh Euh, Ahmadou Kabir Mbaye tabarkàlla euh, kon ñu koy santaat bu baax di ndaw waaye tamit ki taxawaayam bi nga xamante ni moom xasida yi rek ko ñor euh, te ku ko xam-xam si buy buy dem sax jaruñu koy laaj ndax ci xasida yi sëriñ Tuubaa rek lay xëy fi may daanalee tuuti rek sa diggante ak ki xamante rek moo di sëriñ Akassa ak njàngkat yi parce que invité nga ci jàng kat yi te yow jàngkat nga ndax programme bi dina neex a ligganti ndax tey boo wootee jàngkat yi am ay soppe ñoom ñëpp bu ñu dajaloo ci bés ba te genre programme yooyu day liggantee jafe jànkat bu nekk war ngaa bëgg a barkeelu ay am na ñoo xam ne bu ñu xayatee micro bi sëñ Moussa euh, du ñu bëgg a bàyyi ndax tolluwaay bi fu mu leen toll la. waaw moom jànkat yi daanaka mën nañu ñëpp suñu xarit lañu. dëgg la waaw mhm. ndax ñu bëri dañuy bëgge mhm. ci lii ñu ne. waaw daanaka évité nañ ay jànkat yoo xam ne. Mhm. incha allah rabi xam nañ ñi te rafet nañ jort ni dañ teew ci bis boobu mu ànd ak dogal yàlla. macha allah waaw mu mel ni rek ñu ngi bëgg a jotaay bi. date bi dinañ ko bàyyiwaat mu joxaat li mu bëgg a joxe yépp ziar tam ñu mu war a ziar ñëpp muy sëriñ Moussa Karamula Zikrula dañ lay bàyyi rek xam naa ni moom sëñ Modou alxuraan munoo toog ci jotaay ba ba noppi te amoo loo defaat ci moom wala loo mën a defaat ci biir xasida yi dañ lay bàyyi eh, nga barkeluwaat tuuti ci xasida yi ginnaaw rek ñuy tëj di joxewaat programme incha allah. waaw ah, kon ñu barkeelu rek ci xasida yi. am di wa shukri liman kulli bishara lëërilandunay suuf jinin dasal sara xamde wa shukrele man kulli bishara lëërilandunay suuf jinin dasal sara مزغاجني من بني ديمان أنشر لله كل ليلة عبر مكرمات من أرجاء في هجام من شر إن الذي لا إله سلسل الخشاد زيارتي فاره دارين أو سار إنا لشئنا إلا سلسل أخذ خشيد زيارتي فاره دارين أو سار tabarkàlla jërëjëf sëriñ Moussa Kalamoula Euh, santaan nañ la beneen yoon tabarkalla waaye itam di bëgg xasiday sëriñ Tuubaa yi lool te ñu ci bare bare yaakaar naa di man ko seetlu euh, ku la xam-xam ne doxee ci géegu googee ngay doxee tabarkalla mu mel ni waxtu euh, bi ñu rek daanaka jot na ñu di la santaat ci sa disponibilité waaye tamit di la ñaanal rek sunu borom def ci ndam ci barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mm. ci rawatina borom guddi gi nga xam ne moom nga tuddee di maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye tabarkalla yàlla na yàlla sunu borom def lépp mm. faj aajo yépp ci barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo tamit du ñàkk xëy na am ñoo xam ni ah da nga leen gën a dolle waat waat ci bés bi ndax mënuñu ñàkk ku lim nag fàtte buñu nee jum waaye da ngay fàtte ah, ñu bàyyi la nga daan ku lim jum mm-hmm. waaw ñoom bés bi daal ñoo ngi ciy woo képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah muhammadur rasulullah mm-hmm. rawatina suñu mbokk murit yi ak suñu mbokk Baay Faal yi mm-hmm. bàyyiwuñu kenn ndax ñun dañu tijaan yi dañoo bëgg xaadir yi dañoo bëgg laayeen dañoo bëgg ba ci cene ba cene ba yi am nañ ciy soppe waaw kon nag ñoo ngi ciy woo ñëpp waaw di ci woo njabootu sëriñ bi. jërëjëf njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw njabootu maam Cheikh Abdoul Kabir waaye njabootu Cheikh Abdoul Khadir Thiaw. jërëjëf jërëjëf waaw tabarkalla di ci woo képp koo xam ne soppay Moussa Ka Damou Daal. jërëjëf waa xidmatu daayira xidmatul maam Cheikh ñu moo lëkkale tuddkatu mhm. mi fi nekkal maam Cheikh am na solo waaw di ci woo daal képp koo xam ne day bëgg suñu jëmm ji. mbokk yi nekk nekk taalibe yi nekk Suisse. Mhm. Angleterre. Mhm. France. waaw Italie Espagne. Mhm. Maroc ba ci Brésil. képp kuy bégg Moussa Kane laa ñu ngi leen ciy woo. tawarkal waaw di ci woo nag di ci gën a woo sama waa koñ ndax fi mu ne nii ñu ngi waaj bis bi. ñu ngi waaj bis bi. kon ñoo ngi ñaan. bépp bu fi bépp yéen gu fi waaye am yàlla na ko saa borom mottali te nga daje seen ngërëmal suñu borom alhamdulilah ci waa daayira asxaabul jannati waa daayira mu nawiru sudur waa daayira Jazbul Murid bi nga xam ne mhm. sëriñ bi moo ñu jox ndigal loolu ñu di ko taxawee ci daara ji chaque gaaw am na solo ñu ngi leen ci woo am na solo waaw mboolem daara yoo xam ne rek wëllalante ak man mhm. ñu ngi leen ciy woo jàngkat yi nag bu ma limee damay juum moo tax damay bañ a juum waaw loolu la de waaw bu ma limee damay juum waaw ndax damay bañ a tudd koo xam ne damay bañ a tudd damay bañ a waaw waaw te tudduma ko mu kii ko daani kii waaw waaye nag jànkat yëpp woo naa leen. alhamdulilah ah, waaw jànkat yëpp la woo naa leen. jërëjëf <laughs> jërëjëf euh, sëriñ Moussa Kalamoullah Zikroulah tabarkalla waaye dama ko waxee sunu jotaay yu njëkk njëkk dama doon gis nii rek moom euh, buy ziara moom daanaka intérieur bi rek lay ziar maanaam ñu ngox goxaan ci biir réew mi wala sax amaana ci région bi euh, waaye léegi damay gis bu ci Suisse ak Australie sax damay dégg ak Brésil. ak France xam naa ni moom tabarkàlla loolu yokkute la ci barke xasida yi kon ñu lay sant bu baax a baax a baax mm-hmm. kon bokk rek noonu la euh, euh, euh, wax ne mën nga fàtte gox bi parce que la waaw quartier Cheikh Wade géejawaay kon mm-hmm. quartier quartier Cheikh Wade géejawaay di leen fàtte rek ni mooy kant bi nga xam ni sëriñ Moussa Kalamoula Zikroura dina ko amal waaye tamit ni ma ko waxee rek parrain bi rek nee na moo ngi ko dippe rek ki nga xamante ni muy maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye tabarka maa ngi maa ngi jégalu baax ndax daa am suñu benn mbokk taal boo xam ne dafa wàccoon liggéey ñu mm-hmm. naan ko Mouhamed Tall jëriñ Mouhamed Tall

demee cee gox ba euh, xam ne rek euh, quartier Cheikh Wade googee itam moo ngi koy def liggéey bu am am solo yal na yàlla suñu borom gën ko fay ci barke Serigne Touba Khadim tamit di santaat bu baax a baax soxnaa ji Jóob ci jàppandal gi di la jox di daje ba beneen asalaamaaleykum. géero géer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah Abdallah baay ba Mustafa Amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee